صدور الرجال قبور الأسرى صدور الرجال قبور الأسرى ليس ليس في الكتب والقراطيس علم إنما العلم في صدور الرجال ها loolu mooy li ci nekk dënnu góor yi mooy wallaay benn góor ñi mooy sincèru sëkkëriñ ñaari bëyit yi Maodo mujj wax dama leen ko doon nett bi muy tàggu mag ñi mu wax ne ala ya bani hada zamani عليكم سلام وداع لا سلام قدوم وقد كنت أرجو قبل تيسير رفقة وقد عن لي يأس بنيل مرور ياري بيت لسري ألين جيكو كبندل mu ni yéen doomu jamono maa ngi leen di wax alaykum tàggoo waaye du salaamualeykumu agsi dama yaakaaroon ni danaam am ci yéen dem naa sama ya tas cini ni am ànd ci jak. ma bëccëg ngir xam gi ma xam ni aada mi ngir rongé kër gi ma jàq ca ndax mag ñi àndoon ak Maodo buñ ko matul ànd ku koy mëtaal ma laaj ko sëriñ Alioune mu ni ma gàtt naa ci nan dem ci kiy gàgganti nit ñu àndandoo dem seeti sëriñ Babacar Sy ñu ngi ko fekk ci xabdu bu métti kenn ku ci ne catu la la jox mel ni daf la ragal walla nga mel ni sobe la seen xàll seen xàll diggante xabd ak bast ñoo ko moom bokkul ak bonne humeur ou la mauvaise humeur De benn La bonne humeur ou la mauvaise humeur tu peux ci tabiatul bashariya la yem ci la yem moo tax qabdoog bastu bokkul xeet la ci wilaaya Les la ci wilaaya ndax bas espèce dilatation lay doon au niveau de l'âme qabd espèce resserrement lay doon au niveau du cœur kooku jiggi at tabiat al bashariya ñu fekk ko ci xabtu bu métte métte fay fay sax xawuñu ko def waaye terewul ñu laaj ko ko pour wax la ni loo gis firi walla loo gis traduire ko adduna bu tukki la boo ci amul ndigal bu ko def keroog daf ñu ni Maodo daf ci doon wone ni Euh, xam nga bu jëkk am na sax ñu daan wax ni mën nañ la jox ak pay ak pay euh, martaba la bu lay may nga man jàng léegi alquran kaamil bi ba mu jeex ci ñaari seconde moo tax ñu tudde ko ak pay wante li muy am am solo ak payul akbar moo ko ëpp solo mu ni nag daf doon wone ni ci mërtaba boobu la toll moo tax mu waxe loolu te loolu Sëriñ Aline laaju ko woon Maodo Maodo doon xaritam ñetti ndigal yi yi Cheikh am yépp sëriñ Aliou ko bind moo bind ndigalu sëriñ Babacar ci xaqiqa moo bind ndigalu sëriñ Babacar ci tariqa moo bind ndigalu sëriñ Babacar ci sharia Maodo ko ko bindloo waaye mënul woon firi ñaari bayt yi te moo ko bind fop ak tey xeet la ci wilaaya te xam nga wilaaya kenn du ko fam yàlla koy may te yu la ci wilaaya ndax tari alxuraan ci benn minute xeet la ci wilaaya waaye ak tayul akbar boobu kenn mënu la wax la إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا نزلوا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها نجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا wata Maodo daan wax ni yi ci biir suuf si bu ngeen leen dee tudd na ngeen leen tudd nànk ndax rido bi dox sunu digganteeg ñoom woyof na bu ma waaw Sëriñ Babacar si daan wax ni daaniki bu teggin amoon dey leetar ak tembar rek kay dox sunu digganteeg ñoom pour wax la ni ki dem demul ah, ki dem demul ki dem demul